tey dañoo organiser woon activité de reboisement fii ci ci commune bi euh, mu dugg ci cadre campagne nationale bi nga xamante ne président ma ko lancé euh, le 9 mu nekk campagne boo xamante ne dañ cee bëgg a jàpp en tout cas ñun waa wàccoo bi et particulièrement euh, la jeunesse moo tax tey ñu organiser activité bi ànd ko ci nag ak la mairie de de bi yi nga le représentant du maire Mungifi, ngi représentant chef de village également Mungifi, ngi fi également le chef de brigade forestier Mungifi, ngi nous accompagner vraiment encadré nous, sommes ñu fini euh, particulièrement aussi euh, jeunesse wu Combi bi tey gis ngeen ni ñu mobilisé forte mobilisation bokku ci activité bi nga xamantene mom lañuy def ni tay euh li nak nek activité bu am solo pour ñun ndax euh, environnement mom yaakaar naa ne buñ ci dougalé jeunesse mën na am véritablement ay euh, retombées yu yu positif ndax jeunesse ci lu mu dugg day day réussir motax ñu mobiliser jeunesse bi xam nañu ko né également euh, nawétane amul ren donc je pense que euh, au début peut-être nit ñi mën nañu am appréhension mais énergie bi nga xamante jeunesse bi amon nako diko di ci nawétane bi yaakaar cette année. da ko dugal ci euh, reboisement. léegi ñun comme dañoo ne dañuy doog a tàmbali euh, dafa am philosophie de base boo xam ne dañ koo teg bugguñu di jël ay deux cent trois cent quatre quatre cent plants ñëw jëmbat ko te du baax moo ne ñun comme dañuy doog a commencé dañoo dugg te dañoo dugg ci dynamique ñu ne nañu def lu ndaw objectif principal bi mooy lépp bépp garab bu ñu jëmbat tey ñu fexe ba mu baax. parce que nous avons def réunion de préparation le chef de brigade aussi vraiment que nous que conseillé woon moom nous ñu bëgg top. topp une cinquantaine de de plan la ñu jël à des lieux stratégiques maanaam ci enceinte mosquée bi ci enceinte école bi ci enceinte église bi ak fi nga le long de la route qui entre à Thiombie Ce c'est des des espaces stratégiques ak ci yenn euh, devanture kër yi nga borom engagé wu nañu pour jël garab suivre ndax tey garab bu planté tey pour def suivi. activité avec la situation di di Covid donc ñu euh, xool xam puisque on est actuellement ñu ngi donc c'est très normal. Nous avons dit que le président de la république en l'occurrence le président Macky Sall moom la jël euh, lancer euh, la journée de l'arbre le 9 août passé donc nous avons inspiré pourquoi pas nous, avons initié en tant que jeunes des activités du genre étant donné que ren un amul donc pratiquement nous euh, avons te xam nañ avons garab ci comme nuñ ko fait dafa garab dafa am solo ci dundu doomu adama di len sante di len gërëm parce que activité bo gis dekk bo gis bu développer rek jeune yaa ci te jeunesse bi en tant que tel luñu jog warna rek warna mëna soti té te lu dem ci jëmbat garab dafa na lu am solo la dekk bo gis mu naat naataange buñ koy wax mm, gàncax tax garab tax garab nak li ci nek bari na mënuñu toog fii di ko lëm waaye lii ñuy def nii ñu ngi ñaan suñu borom bu mu nee nag mu continuer parce que tey cëmbee ngi ci ñeneen a nga ca ñu def ci suñ xel ne bu ñu ko kenn dàq dëkk bu ko def mu réussir ñun war nañ koo def mu ëpp foofu ñoom dem nañ ba am xalaat boobu euh, monsieur le maire monsieur Diouf ak. Euh, euh, le chef de brigade forestier ñëpp nek seen ginnaw yaakar nañ leen lu wara mëna mën dem la. liñu fi taxa tew tay moy euh, la journée de reboisement des jeunes de chombi luñu rafet lula la surtout ci période bi nga xamantene ne wax nañ ko ana waxat ko rek ci feebar lañu nek té pratiquement jeune amuñu activité surtout activité nawetan yi nga xamantene ñu ko daan def motax sen seen xalaat pour au moins ñu jéem a def loo xamante ne mën naa jëmal commune bi kanam mën naa demal askan bi kanam muy reboisement reboisement am na solo vraiment fi ñu ko def aussi am na solo ci mosquée bi lañ ko def ci école yi ci église bi ak ci yoon bi nga xamante ne tabax tabax nañ ko muy yoon bu bees muy piste bi parce que ak ci yenn kër yi donc am solo bu baax parce que ñii yëpp c' est des structures yoo xamante ne dañuy accueillir ay nit te vraiment nit ñi soxla nañ ko.